الله لا إله إلا الله لا إله doom yu baax nga àndal ak ñenn ci rakk sax ak ci rakk ndaw de bu ñu ko yónnee mu wax Cheikh Moustapha nee na ndaw bu ñu ko yónnee mu wax ki mu àndal muy sama doomi ki mu àndal muy doomi ndeyam Eh, te bari wax lool nag. te bari wax lool. bari wax nag bonul. nee na bari wax nag bonul. boni wax a bon. boni wax moo bon. bari wax bonul. waaye bari wax bonul. Eh, moom moo ma dugal ci wax a nee maa ko dugal ci wax ji muy bëgg a wax. Oh, kon ka tax ñu bind lépp. nee na kon ki ñu bind lépp. muy sallallahu alayhi wa sallam. turu Abdoulahi. turu Abdoulahi. la bëgg koy wooyee. la koy wooyee. daa bokk ci tur yi mu a taamu. daa bokk ci tur gën a taamu. defal lépp. nee ak li ko suñu borom defal lépp. defalul yàlla dara. te defalul yàlla dara. moo tax mu bëgg koy koy wooyee tur woowu yi. kon Serigne Abdou. ki ñu yónni. ki ñu sa doom sa doom la de. waaye dafa jaay njureel. waaye jaay na njureel ga. jënd ko ak taalibe rek. muy Serigne Falilou Fall. jëwriñu seigne Modou Aminta ñoo ngi ñaan sa borom yàggal ak dundam te wéral ko nee moo ko yónni mook Cheikh Abdou assid Fall mii ak doomam yu bax yi mu ko bolel ak nu murid yi nga xamni ñoo bëgg bokk yeen pass pass mu lay siaré sama mag ju bax ji turandoo yoonent yalla sooy bu wii di ñaan yalla suñu borom jotaay bi nga toogi seigne Abdou nee na la jik loo Tian nga liggéeyal fi sa waajuru tedd wa liggéeyal fi sa maam ju tedd ja ci daraje Cheikh Modou Falilou Fall nee da nga ñoo gëj gis rek waaye sa xol ngi fi ñun waaye sa xol mi ngi fi ñun waaye ñun tam suñ jëm mi ngi sa biir xol bi sëñ Mahmadan Mbacke ca ama sel sin rek sëñ Modou Amin Fall daa nuyoo ak moom jëw Cheikh Fall nga ñoo ngi ñaan sa borom mu dolli ngërëmam ya waaye ba mu laataa bàyyi loxoom dana ko ni sëñ Modou Aminta ni ko sëñ Modou Aminta ñu baax ñëpp seen i jëmm ni ko ku baax noo ko def noonu la la def sëñ Abdou nga xam ne loola ndimbal la ci ku baax ku ko dégg ku nekk ndeka waaju baax moom sëñ Abdou dama laa sopp jang wax. dama laa sopp jang koy wax. du sunna. nee du sunna. waxuma la ak farata. man doob la rek man doob la rek. nan daal nga wax. ko. waaye jëru ko waaye jëru ko nag. noo def waaju baax yëgal noonu la la waaju baax def. kon ñun tam jenn. ñun ay doom lañu. ñun ay doom lañu. waaye doo jaay suñu jureel. waaye jaay leen suñu jureel gi. jënd ko ak taalibe rek. kon noonu murid yëpp yëpp. kon noonu murid yëpp ñoo lépp barab bii nag. ñoo ngi jàpp ni. ñun ñii la war. loolee ñu sa waajur waxoon nag. loolee ñu sa waajur waxoon. di suñu maam ñun. di ñun. juróom-ñetti fan. ci weeru koor. ca ama salsasin. ca ama salsasin. mu ne leen. dafa a siyaare ji sama baay Cheikh Ibra nee xam nga baay Cheikh Ibra lay wax waaye buñ tudd Cheikh Issa nag Cheikh Issa lay wax kon ndeke moom amatul baay moom sun joojee daa jaayeen jureelam nga mu leen ba may tàggoog sama baay Cheikh Ibra mu ma baara jenn mu ko jenn mu ni dëgg-dëgg murit lu mu jege ab sëriñam fa dem te woowu ko. ma ne ko loolu jenn ma yaakaar dëgg-dëgg ma ne ko jenn ma mu day jig ab di ko wéttili ba soxlaa yónni ko mu ne ko xam loolu daal seen maama ko waxoon alal na ku koy indi ci am réew lu ci amul yow ko war a laaj loolu sëñ Baara Jenn leen ko waxoon moom si am sufa mii neenal waa baax nag moo gën a di seenu asamaan kon moo la waxoon loolu nee bu nee woo woo junni naan ko am junni. naan ko am junni. ci penc ma. ci penc ma. kaay wuyu. kaay ci jenne. kaay ku am junni kaay wuyu. ku am junni kaay wuyu. sëñ Baara Jenne nee na. boo yore junni bu manqué ab tànk. bu mu tax nga wuyu ji. ndax mataloo. moo lañ ko wax ci weeru koor. juróom ñett fan ci weeru koor la woon. jërëjëf Fall maa ko am jullikaay wuy bu ne bu naan ko am jullikaay wuy daal sëñ Bara ne boo manqué ab tànk bul dem woowuñu la woowuñu la ndax sa junni matul ndax sa junni matul lan ñu jublu wax nag mooy lan ñu jublu wax nag mooy nee lu Seex Rafaal ne ci ak taalibe la bokk sëñ Bara nee na boo ko amul bu yóbboo nga de wuti ko soo bëggee sa taalibe mat nee lu sëñ Bara nee lu Seex Rafaal ne bokk ci it lu mu diis diis lu mu diis diis bu yóbboo nga génne ko sànni nee loolu daal moo leen ko wax ñoom waaw mais sëñ Cheikh Mbacke Fall sa waajur la fi jóge moom it sëriñ Cheikh Assou Ndiaye amiin